mooy bas ban message ngay lancé bas ci gaal yi xale yi deetaay ci gaal yi ci mm-hmm. géej gi mm-hmm. booy ñu ngi dem xam nga gis nañ message gaa ngi ci lancé mm-hmm. yow ban message ngay lancé en tant que porteur de voix en tant que artiste ñëpp di la déglu waaw li may lancé rek leen la xam nga àdduna ndeysaan am na ñoo xamante ni fii kenn bëggul dee ndeysaan kenn bëggul gaaw a dee aussi am na déggoo ma de ñëppay dee waaye kenn bëggul gaaw a dee ndeysaan kon tey ji ku nekk jeune nekk jeune ndeysaan dem ci gaal dee fa du amaana moo jël bakkanam jaay ko amaana mun na toog seen kër gis problème yoo xamante ni moom mu ngi ko bëgg a faj mënu ko faj mhm. xam nga la fay fekk te tamit Europe da mun nga fa dem aussi doo tekki mhm. mais amaanaam ku si nekk ndeysaan mun nga toog benn jour siisu wala gis sa loo xamante ni mhm. la quoi te mënoo ci dara nga ne xaaral ma xaru ji damay tamit jéem a ut lu ma jàppalee sama yaay comprendre nga fi ma waxee des am na ñoo mu ngi leen waaw ñuy tam nga toog sa dëkk a jaayante mhm. mais képp kamit koo xamante ne jug pour dem amaana ama lu ko lu ko xuri loo xam mhm. nit ku nekk ko ñëw rek balaamee di ko tooñ quoi mhm, parce que ku nekk koy jox cëram mais yàlla na leen yàlla delloosil seen xel ñun ñëpp laay wax ñun ñëpp ba ñuy bàyyi xel si yenn yi muytu parce que mooy li wax rek nit ki li ko xam mhm. nit ki li muy dund xam mhm. am ku jugu gaal bi tey ndeysaan mun na toog seen kër dix jours du ñu te doo xam te yow wax jëndaloo ko lu mu lekk fajaloo seen soxla kër kon ku si nekk rek da nga koy ñaanal la mu bëgg yàlla defal ko mhm. ku si nekk Sénégal yàlla na indil xéwal boo xam ne sa xel du lu yóbbu ngay dem feneen sax loolu ñaan ku ne si réew mi Mhm. nekk jeune yàlla na la yàlla dooleel ba lépp lu sa yaay soxla ak seen waa kër yàlla da la ko dooleel da la ko jox mhm. parce que xam nga rek bëgg a tekki mhm. ñëpp a a a a lu nit bon bon bon yaay du jur doom bañ ko kon képp kuy dund tamit nu sa yaay munti mel bëgg teral sa yaay nu yaay munti mel tamit fonkol sa yaay amaana bu gars xam nga rek dañuy bëgg xam nga différence quoi mais yàlla neen yàlla dellu seen xel ñu xam ne tamit dara weesuwul jàmm moo gën lépp yàlla na yàlla defal jàmm delloo nekk ci dëkk bi xam nga jaayante ko ku nekk rek wërsëg bi nga soxla yàlla jox la ko amiin di ci dolli ne message bi dëgg la temps yi gis nañ ni fléau boobu noonu mu ngi am et tout mm-hmm. mais nañ comprendre rek live bi moo tar gars dañoo sonn mm-hmm. gars yi dañuy xëy lu am mm-hmm. kenn bëggul dugg ci géej pour dee parce que kenn bëggul dee mais gars tamit bàyyi leen dugg ci gaal gi lu tar tar nañ ko jéem a gérer parce que tamit doo duggee ci gaal gi sa bakkan ci xottu gerte ba yàlla dogal ngeen dem dëgg tamit toog bi mu neexul fii gars yëpp bëgg dem parce que boo toogee fii gis gis lu kaaw ba et tout da am envie dem maa ngi profité di nuyu waa diaspora bi di nuyu waa kaaw bi di sama xarit laay hmm. ah mon ah, borom africa rek maa ngi béggee ñëpp di béggee waa diaspora bi tey moo doon seen premier numéro ak ndaanaan mag muy bas cung xam naa nag ci kàttanu yàlla di ngeen gis waa ñu ngi béggee ñëpp di béggee waa Subateel ah, ñoom boucher sama papa ji daas bu mag bi kooku moo tax man mhm. aw ma benn problème. ndeysaan lu ma soxla. Mhm. lu ma soxla. ndeysaan moo ci gaaw mook jabaram awakan sama yaay ji ko dama leen di ñaanal jàmm. Mhm. waaye su ma amoon léegi léegi léegi lu ma ñor léegi léegi su ma jugee léegi léegi génn dem ci moom lu mu munti doon mu faj ko. ndeysaan sama gaay ku si am soxla ak lépp. Mhm. kooku dama koy ñaanal jàmm. ak salaam. mooy sama lépp. Mhm. waaw affaire la. ah kon gars yi kontaan nañ de. <laughs> kontaan nañ de kontaan Mor Talla Fall borom fi ma génn yoo la. comme <laughs> d'habitude daal yu baax yi. yow waa ah. Nord Foire aussi xam nga ak Bastung famille bi staff yeeg ñëpp. sama mhm. mhm. mu jeex. kooku ñëpp la moom si sa borom jëppal kenn moom <laughs> yaayu xale yi. ndeysaan dëgg neexul kontaan nañ <laughs> ñu ngi leen di nuyu di remercier ngeen xaaral ñu beneen prochain numéro ak beneen daanaan. Africa Rap ci ab El Capotan. Pape Kane dëgg naa la ah. Eh, laay amul bàyyi sama gars yi ma fi